bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin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 waaye di ko ñaanal sunu bopp yi bi taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp nu dikkaat yéen fii ci seen télévision Lamp Fall ci seen émission bi ngeen miin di Fardul Hayni tey di ñaar fukkeelu numéro ak benn waaye it di ajuma di ñaar fukki fan ak benn ci chahru ramadan al mubarak 1441 hijriya nu des rek ci seen ni ñu ko xamee waxtaane fa li nga xam ne mooy sunu faratey jëmm jëm ci fiq ak li ci aju tey nag li ñu waxtaane mustawa bi muy néew bi dana xaw a yëkkati ko tuuti waaye dañ ko nag leeral suñu kem kàttan ci man ko jegeel bay ñi nga xam ne seen niveau kay wutit man ko man man ko jariñoo waaye lenn du ci génn it laab ak julli dégg ngeen ci seen sunu émission yu weexu yu weesu ñu waxoon ne laab ci anam yi lay ame muy ndox walla ci pàkk bu laab su dee ki am toj mu mag borom toj mu mag mooy ki am janaba mbaa ki set ci baax walla ci gësin mi raygal wala meret kooku la sangu war su dee toj mu ndaw nag muy ki jàpp war mu jàpp ñu ko tuddee laabu xabas ak laabu xadas laabu xabas mooy laabug toj moo xam gu moom ak ma la moo xam mu ndaw ma la mooy laabu xa mooy laabu xadas laabu xabas nag mooy ki nga xam ne dafa am sobe rek muy jëmmam yaram dafa am sobe wala yéreem am sobe laaj barab bi muy jëlee am sobe mu feex bi ni sobe soo soosu mooy laabug xadas mooy laabu xabas bokk mooy laab cim toj wala laaj laab ci sobe su fekkente nag borom toj mu mag mais mooy ki sangu war daa amul ndox walla yaramam moo moo am ngàntal jëfandikoo ndox borom toj mu ndaw it wala borom toj mu ndaw moo am ngànt ci jàpp benn daa amul ndox walla yaram moo ko nanguut suba tiim mooy la koy wóotu tiim nag ñu waxoon ne ci yii les ko man mooy ci suuf su làpp mbaa doju dënn walla doju béton woo xam ne dañ koo gase ci suuf jaarugul ci isin mbaa ab nees ci ki nga xam ne fi mu dëkk nees rek a fa ak ci miiru ban boo xam ne raaxuñ ko ak ciment penturuñ ko te lool ki ko may mooy ke feebar bu mënta ju fi mu tëdd mu tiim ja yii lañ waxoon di ci lañ sañi sañi tiim léegi nag fekkee da nekk ci barab boo xam ne amoo ndox moo jàppe amoo loo tiime suñu doon joxe misaal gaynde day dàq ceeb àll ba nga yéeg ci garab gaynde ga boo fa di la xaar waxtu julli jot na nga war a julli kon léegi yow teyiroo am njàpp nooy def walla bokk danga ne ci dëkk boo xam ne amul suuf lu mel ni pari Paris sax dem demuma fa waaye ñi koy misaal eh, wane nañ ne amul amul amul amul amul suuf waaye dem naa ci barab yoo xam nag moom gisuma fa suuf walla wala bëriwu fa fu mel ni Istanbul Istanbul mën nga fa bañ a suuf di suuf fenn Madinatul Munawwara doo fa gis lu dul da ngaa génn dëkk ba Makkatal Mukarrama doo gis suuf la may lu may danga sori lool soo nekk ci barab bu mel noonu nag nga xam ne dem nga ba waxtu julli jot amoo ndox moo jàppee amoo pàkk boo tiimee nooy def loolu ñeenti wax rot na ci yépp ci ngir mi la imaamu Malik am na lum ca wax Shahnuun am na lum ca wax Ibnu Qaasim am na lu mu ca wax asbax am na lu mu ca wax te kenn bokk ci morom ay wax te ñun ñëpp ay kilifa lañ ci ngir mi ci ngirum malikiya duñ ci sànni waxi kenn ku ci nekk ku ku ku doy ko ñuy sukkandiku ca waxam imaam Maalik lam ci wax mooy doo julli doo fay it su julli jotee nga nekk ci barab boo xam ne amoo pàkk boo tiime amoo ndox moo jàppe neen doo julli te doo ko fay loolu la Maalik ci boppam wax moom mi kilifa ngir mi Ibnu Qaasim di kilifa gu mag ci ngir mi di ko ñu ku ñu sukkandiku ay waxam mu neen da julli ca sam toj maa da ngay julli ca ñàkk njàpp googee waaye na waxtu woo laabe nga fay ko da ngay julli na nga mane te boo fay ko loolu Ibnu Qaasim wax asbax ne bul julli ci sam toj de déedéet da nekk ba laab rek saa laabee nga fay ko bu moom ne dangay julli ca noona tafay du la ca war kon kenn bokk cee moroom ay wax kee bul julli bul fay kenn jullil ci sam toj te laabee nga fay ko keneen ki ne bul julli ci toj mi Eh, eh, waay waaye nag saabala bi danga ko fekk kenn ki ne bul julli kenn ki waaw ashab moo wax ne jul da ngay julli noona da ngay julli na nga ne rek waaye fay du la ci war loolu tënk naa ko ci ay bayit ku ñàkk ndox ak tiimukaay te julli jot maali ko nee na doo ko julli doo fayit te ibnu xaasim ne dangay julli ci toj te waxtu waa laabe nga fay tey bañ a lëj asbaxu moom asbaxu moom ne mukk bul julli ci toj asbaxu moom ne mukk bul julli ci toj néegal balaab nga fay koon deesu la tëj ashhabu moom nee na jullil te bu ko fay yenente wax yée ci rot ci seeni lay waaye ñoom ñépp nag seeni wax wér na moo tax ma ne yenente wax yi yépp wér bu la ci neex sukkandikool te bu ko teg ci bànneex kon noonu la deme ci ki amul ndox mu jàppe amul pàkk bu mu tiime te julli jot ba tey bokk na yi ñu jàngale woon ci gannaaw ne julli dafa am ñaari waxtu muxtaar ak daruriyu muxtaar mooy lañu tànn mooy lañ bëgg ko ci julli moo gën su amee ngànt nag daroor yu mooy lu mënta ñàkk soo mënta julli ci muxtaar bi ngir ngànt nga julli ca daruriyu ja ki faat muxtaar na julliwu ca ba daruriyu ak si te fekk amul ngànt bàkkaar bu rëy rëy da ko ci fekk waaye am na ñu ca seete na ñoo xam ne mën nañoo julli ci daroori yu te duñu am bàkkaar ñoom juróom-ñaar lañu juróom-ñaar ñi muy bëgg lim képp ku ci julli ci daroori yu amul bàkkaar ka ci njëkk eh, mooy kii dugg ci diine ji mooy kii door tuub te bi muy tuub dugg ci dugg ci diine fekk na muxtaar ma weesu ba nekk ci daruri ji xam nga kooku julli waxtu da ko daal di war kooku julli gim julli ci daruri yu ji benn bàkkaar du ko ci fekk bu ñaari mooy ndaw li door a baalix mooy ndaw li door a mesure te bi muy yëg ne mesure na fekk na muxtaar mi weesu daroori yi ji dugg julli de ko daldi di war kooku julli gim julli ci daroori yi du ci am bàkkaar su fekkee julli woon na nag lu jiitu muy baalix day baamuwaat julli gi ndax bi mu nekkagul baalix julli gi wëragu ko kon day jàpp ne kon julli googu naafila la kon faawu day baamuwaat julleem ndax day mel ni ba ñu ne ci ma baalix agut biñ duggee mu julli na ca biñ duggee ci daru ji mu baalix kon julli gam julloon lañ ko jàpp ndax boobu baalix agut mooy mooy jotagul nekkagul mesure bii na fekk na mu mësër kon day daal di julli ci la ko julli door a war kon dafa day day julli moom ndaw li nga xam ne dafa baali man dafa jot gént wala dafa mësër te fekk muxtaar bi jeex bañ nekk ci tarori ji loolu du ci am bàkkaar ku ñetteel ki moo de ki xëm mën naa ki kiris dafa kiris bi maxtaar mi julli ca la ko fekk bi maxtaar mi dugg ca la ko fekk ba maxtaar mi jeex ba nekk daruur yi mu door a ximmiliku kooko julli ga muy julli ca daruur yu ja bàkkaar ko ca fekk ndax lam nekkoon ngant la ba ca topp di e, ñeenteel bi mooy ak ndof ki dofoon ba wér waaye bi muy wér nag bi ko ak wér di dëkkal fekk naa boobu maxtaar jeex ba nekk ci daruri ji julli googu da koy war kon julli gim benn bakkaar du ko ca fekk juróom bi mooy nelaw moxtaar mi daf laa fekk ngay nelaw yewuwoo ba daruri yu dugg nga door a yewu julli ga ngay julli ca biir daruri yu ja dees la ci bindal bàkkaar donte sax bi muy tëdd nelaw xamoon na ne dana sarale xamoon na ne du ca mën a yawu du tax yit julli gam julli ci dara am ci bàkkaar waaye nag su fekkente ne da daa jortoon dafa daf ko jortoon nag te fekk waxtu ma mën a jort na ne day sarale moom te fekk waxtu tàbbi mbaa mu jege moom du sañ nelaw te jullit ba noppi su waxtu xasee tàbbi na na julli bi na door nelaw waaye su fekkee ne waxtu tàbbi na tam xam ne day sarale ba weesu muxtaar mi mu nelaw ci day am bàkkaar waaye su fekkee waxtu duggagul nag mu nelaw donte xam na ne dana sarale it maanaam bu saralee ba ca daruri ji mu door yow it du tee mu julli jëm ci daruri ji du ca bàkkaar kon yooyu eh, mooy yi ci mo mo moo mooy juróom-benneel juróom-benneel bi bi ko juróom-ñaareel mooy mooy mbërëk ak gasin ki amoon baax bi muy set fekk na muxtaar mi jeex ba daroori yu ju dugg julli ga muy julli ci daroori yu ja du ci am bàkkaar wala gasin la gasin mooy meret dafa amoon doom bi meretam di arité fekk na muxtaar ma jeex ba daru yi dugg kon julli gam julli ci daru yi jë du ci am bàkkaar waaye ko dañ ca sart nag euh, laab ga euh, dañ dañ dañ ci ñëw sax dañ ci ñëwaat ci kanam waaye loolu duñ ci limaali ki màndi nag ci màndi ci sàngara ki naan sàngara ba bi muy ximmili ko daan rek sagom fekk na dëru ji ta tàbbi kooko day am bàkkaan la ko waral mooy lam def daa xaraam te moo ko teg boppam kon kooku duñ ko ci limaale juróom-ñaar ñi ma ñi ma jote lim ñooñ ñooñ ñi sañ a julli ci daroori yu te duñ am bàkkaar mu laa wax ci bayit yi ne ku yeex a julleem nga ba weesu moxtaar julli daroori yoom ji day am bàkkaar lu dul ne ngànt daa waral yeexe ga nag te yooye ngànt nag juróom-ñaar lay dog ba jiitu mooy ki dugg rekk ci diine ji tasek daroori yu bul ko yedd ji ka topp moo di ndaw li baalix te taseek mu doon daroori yu ja kon na julli rekk teyit du bàkkaaru te benn rakk rek donte le moo ca des du teem war ko nag mooy bi muy baalix fekk na li des ci daroor yi ji benn julli benn rakkaa fi xaaj du tee julli julli googee da koy war julli rakka duñ duñ ca nattale duñ ca nattale ak làpp loolu dañ ci delsi kon teyit du bakkaaru te benn rakk rek donte le moo ca des du teem war ko nag donte lu julli woon na it lu jiitu ko naafila lay nekk ba tax na baamoo ko kon julli gam julli te fekk baalix agut naafila la léegi baalix na kon da koy fay maa day julliwaat su fekkee waaye su fekkee daru ji jeexoon tàkk na mbaa la ca des matu lu mat ab rakka xaju fi nag du ko war kon julli ga cay topp koy war waaye julli gi wàcc na ko waaye su fekkee li des ci waxtu daroori ji li ci xaj mën a lu mat benn rakka xaju ci wàcc na ko waaye su lu mat benn rakka xañ na fi rek julli ga ko ka topp di ñetteel itam moo di ki xëm ximmili kom doon ci daroo riyu jatam ba topp ak ndof la ki dof ndem dafa wér ci biir daroo riyu na julli duñ ko lor ba topp may nelaw lu jiitu waxtu wa yow ci biir donte lu jiitu waxtu wa xamoon na moom ne buy nelaw day sarale ndegam dafay ko jot nag ak sarale waxtu way tàbbi xamal xamal kon du dagan ci moom nelaw lu jiitu julli lii du fen ba mujj nag moo di mbërëg ak mbokkam mbokkam mooy gasin muy meret muy raagal ak meret ba mujj nag moo di mbërëg ak mbokkam kaset ca biir daroor ja julli bul ko jam ku màndi nag bokk ci moom ngir lu xaraam du ngànt moom ngir lam ca tàbbal boppam waaye nag képp ko dab waxtu wax koo xam ne dab na waxtu wa nga xam ne man bi bu dee ki ki dugg ci diine ji ba muy dugg fekk na muxtaar mi jeexagut su deente ne ki eh, ndaw li baalix la bi muy baale fekk na muxtaar bi jeexagut foofu ñaar rek lañ ci génn muy nelaw ak fàtte ñi ma limoon ñëpp ki nga xam ne dafa dugg ci diina ji bi muy dugg fekk na muxtaar mi jeexagut ndaw li baalix bi muy baali fekk na muxtaar mi jeexagut ki xam bi muy ximuli ko fekk na muxtaar mi jeexagut ki dof bi muy wér fekk na muxtaar mi jeexagut ki yor gësin mbaa meret fekk eh, wala walla wala walla walla mbërëg su fekkee bi muy seet fekk muxtaar mi jeexagut kooka ngànt loola day rot su négee daroor yi ja day am bàkkaar kon kii tuub te muxtaar mi jeexagut na julli ca muxtaarama balaa jeex ki baalix na gaaw julli ci muxtaar mi balaa jeex ki set ci gësin wala ci wala wala wala ci mbërëg mbaa ki dof wéer ca mbaa ki xam-ximili ko ca may na gaaw julli ca balaa waxtu waa jeex ndax ngantam rot na su ndigee daru yi day am bakkaar léegi waaye ko nekk ci ñoom nag dañ cee nattale lab gi mooy dañ cee sart li des ci waxtu yi laab xaj na fa ak julli benn rakkaa fekkee xam ne laab bu fi bu fi bëggee laab jël fi benn rakka du fa xaj nag boo waxtu day rot ci moom kon kon dañu nattal laab ga moo xam toj mu ndaw mi la moo xam ko ki am toj mu am toj toj mu ndaw la xam ne mën na fee sangu julli benn rakka waxtu door jeex da koy war su dee ki jàpp war mën julli fi benn rakka waxtu da koy war su fekkente ne ki am ngàntal sangoog jàpp la tiim war ko mën na fay tiim julli fi benn rakka waxtoo da koy war waaye su fekkee laab xëju fa nag waxtoo day rot ci moom su dee kay am toj mu mag xam na ni mënu fee sangu julli fi benn rakka kon waa waxtu rot na ci moom waxtu ci topp la moo koy war su dee itam ki jàpp war mënu fee jàpp julli fi benn rakka day rot ci moom ki nga xam ne itam tiim a ko war waaye man xam na ni mu ne féetam julli fi benn raka ba tey waxtu day rot ci moom yooyu it doon lu mat a xam lu dul nag ci dugg ci diine ji mooy ki sa saa bes bi doo dugg ci diine ji muy wàcc bes gi kon des ci natt ak laab moom moom fu mu tuubee rek te fekk lu mat rakka xaj ci xaj ci waxtu yi da koy war moom ma du ci nattal laab ga mooy na fa mën a jël benn rakka rek donte xam na ne balaa julli balaa laab julli sax mu mu ma teewul day day laab julli wala fekk dafa laab ba noppi e, waxtu wa jeex su day day fay kooku julli su ko defee kon loolu day day day mat a xam loolaa wax ne képp ku dab waxtu wa nag ngànta la rot lu dul nelaw ak fàtte rekk kum ca not ndax yonent bi saa su dafa waxoon ne rufi al xalamu anin naa'imi wan naasi rufi al xalamu anin naasi wan naa'im tegg nañ xelima ak bàkkaar ci ki fàtte ak ki nelaw ki fàtte saa bu fàttalikoo nag xewaat ko day am bàkkaar ki doon nelaw su yeewoo yeexe yeexewaat ko day am bàkkaar waaye jamono ba muy nelaw wax ne waxtu fekk na ko muy nelaw dees ko ci bindal bàkkaar waxtu jot na da koo fàtte xelam demu ca des ko bindal bàkkaar bàkkaar mu koy fàttaliku moo tax ma ne képp ku dab waxtu wa nag ngànt la rot lu dul nelaw ak fàtte rek kum ca not ku nekk nekk ci ñi danañ ca danañ ca nattale laab ga ci toj mu ndaw ma ak mu mag mële ngàntal ndem dañ na ngàntal ndem dañ na teyit waxtu wa xat julli ga kon wàcc ko nanga ko ràññikat waaye ndegam yaatu na kem rakka bu mat buñ nattaleeg lab gu ko jiitu kon dorot donte ab tiim la lu dul mu doon ki dugg nag ci diina ji deesu ci natt lab moom fu mu tuube ji te rakka rek xaj fa julli war ko kon dontele moom lab ga dafa xajul sukkin te moom bu jullee ca biti waxtu wa it du tax mu bàkkaaru ca moom dong la kat loolu moom dong lañ ko may su fekkente nag day ñaari julli yu bokk waxtu du mel ni tisbaar tàkkusaan wala timis ak gee ndax tisbaar tàkkusaan ñoo bokk waxtu timis gee ñoo bokk waxtu ndax ñoom ñépp ñoo bokk seen daruur yi fu mu yem ki dem ba tàkkusaan yi suuf 6 heures mu julli tisbaar fayut daa jox ndax génn ko waxtu sama mooy mi ngi ci daroor yi tisbaar ba tey su fekkee ne day ñaari julli bu waxtu waxtu comme ñaari comme misaal mi ma joxe mooy day day tisbaar takkusaan wala mu timis wala mu timis ak gee mu jorta seeni waxtu nii lay demee nii ba lay bëgg a wax su fekkee dafa li xam kàbbar julli benn rakkaar rek waxtu wa jeex xam dafa julli benn rakkaar jant sox wala dafa julli benn rakkaar rek jant fenk da cee dolli beneen rakka ci ak sopp maanaam mu dolli ci beneen rakka sëlmal jàppe su fekkee jotoon na am ñett rakka ba tey sëlmal te daal fay nag mujj su fekkee daa julli benn rakka jant sox na ca dolli benn rakka sëlmal su baaw tisbaar wàcc na ko maanaam geer tisbaar takkusaan wàcc nag mooy takkusaan rek ko war da doon julli dem ba julli benn rakka jant fenk na ca sopp nañ mu doole ca benn sëlmal léegi gee wàcc na ko timis timis wàcc na ko gee ko war kon nag saa boo xam ne waxtu wi xat na ba nga xam ne julli benn rakka fa xaj ca waxtu wa kon ga mujj moo koy war ga ko jiit fa fa wàcc na ko maanaam bi ngay la maanaam bi ngay set ki baax bi muy set nga xam ne feeg nga ne fii yëg laab jël benn rakaa moo fi xaj tisbaar waru ko takkusaan de ko koy war kon saa bu waxtu wi xatee rek ga mujj moo koy war ga njëkk wàcc na ko waaye su fekkee lu ma ñetti rakaa xaj na fi nag tisbaar ak takkusaan bu dee ci bëccëg gi tisbaar takkusaan ñëpp koy war mën naa xam mën naa julli ñetti rakaa jant door kon dana fay tisbaar ak takkusaan ñaar yëpp su dee ci guddi gi ki set te mën a julli ñaar ñetti rakka jant door a fenk ba ti timis seggee ñaar rek koy ñaar yëpp koy war waaye su fekkente nag benn rakka fa xaj nag bu dee ci soog jant la takkusaan dong koy war su dee ci fenku jant la nag tim gee rek koy war kee tisbaar kee tisbaar wàcc ko kee timis wàcc ko su ko defee kon loolu dañuy teg foofu sunu baaraam incha allah yu subaa ñu delsi ci àggale ko daal dikk nag ci seen ñaanub tey ñaan ñaanub bis bi ñaanub bis bi tey day ñaan bokk ñaan yiñ ñu toxale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma ahsin aqibatana fi l kulliha wa ajirna min xisyi dunya wal axirati ambaama ko allahuma ahsin aqibatana fi l umuuri wa ajirna min xisyi dunia wal axirati ci ñaani yonent bi saa sallam ahmad ak tabaraan yi ko ci nekk solo na ko xadiisu bi yonent bi sallallahu dafa wax inna allaha taala xad xarama ala nnaari man qaala laa ilaha illa allah yabtaxi bi dalika wajhallah yàlla xaraamal ne ci sawara ki wax laa ilaha illallah te jublu ca jublu ca jëm yàlla képp ki wax laa ilaha illallah ci làmmiñam te jublu ca lu may def ko ngir yàlla képp ne kooku yaramam xaraam na sawara kon laa ilaha illallah kon baat la bu mu am sol mat di wax te di ko baril ndax kalimatu tawxiit la di wane wéetal yàlla ak melokaan ya sax ca moom ak dàq lépp lu yelu ci moom melokaan melokaan eh, di baatu yi saxal lépp lu sax mooy nangu mooy yoonu saa ak la la ci aju lépp di leen di incha allah suba ci waxtu yi seen mbokk seen mbokk fii seen seen télévision Lamp Fall ñaan li gën ci noonu yàlla ko sunu defal dëppale ko li ñu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.